ñuy dalal tey Assane Samb directeur euh, publication Rewmi Quotidien ñu ngi lay nuyu Assane. maa ngi lay fay bu baax li nga xam ne moom mooy politique euh, ci mim réew waaye it euh, suñuy frontière bu ko jaree déjà mu amoon ay njiitu réew yu nekk fii Afrique justement dajaloo woon fii ci Sénégal ca King Palace pour waxtaanee li nga xam ne moom mooy bor gu jéggi dayoo. Euh, tey gi ñuy nemmeeku ci Afrique justement lan nga jàpp ne mooy euh, euh, njeexitalu ndaje googule. waaw dama jàpp rek ni depuis ay at ah, ñu ngi koy wax c'est vrai que bor yi mu commencé bari ci suñu réew yi. ndax euh, bu ko tubaab bi waxul dañ koy xalaat te souvent dañ koy junji mooy bu dee la jëm ci chinois yi te seen xaalis dañ koy yombal bor maanaam pour la la day yomb lool ndax léegi projet yu mag a mag yi ñu koy mën mais loolu tubaab bi jàpp ni dafa am piège bu ci am mooy bu yàggee bor yi dina ëpp ëpp doyoo te du rek du yi sax lañ du na du chinois yi rek la ñuy leb ñu ngi leb également tubaab bi ñu ngi leb ñëpp daal donc bor yi tax il faut mu def ci attention bu dul loolu lépp loo xamante ni moom rek da nga koy faye bor voilà da nga koy faye bor te bari day jur intérêt te intérêt yooyu également dafa cher loolu piège la moo xam ne bu réew yi ci moytu dugg euh, di leb rek di leb rek comme ni mu dalee Sénégal Euh, c'est vrai que am na ay limites ko ñu limites yooyu bu ñu ñu toog ba ñu dépassé ko ñuy door a wax euh, il faut ñu def attention ci yenn fonds yi yenn nga xam ne dañuy jël ay fonds rek teg xaalis baa ngi nii bu ngeen bëgg ñu abal leen mais nga ne moo ma dina am pétrole dina am gaz donc war naa mun lépp lu ne ma lépp ko ëllëg si bu fayam bor moomu mën na tënk sa développement ba nga xam ne nga war a développé doo développé loolu moo tax je crois ñuy xalaat ensemble ñun banque banque mooy gaal réew yi ak yëpp prélimois yeeg yëpp ñu xool nan la ñuy def euh, pour que bor yooyu ñu koy mën di wàññi di wut ay canaux de financement yoo xamante ni day parallèle wala alternatif euh, dina man a remplacer yenn bor yi te du gaañ réew yi parce que euh, ki nga xam ne moo koy leb du moom moo koy fay ñaari président bi koy bi koy leb ñeneen ñoo koy fay ci génération yi ñëw mm. te loolu day diis ci ñoom je pense que il faut également ñu def attention ci endettement parce que mu ngi bëgg a ëpp ndax foogoo Euh, tey ñoom ñoo deful euh, focus ci priorité euh, muy développe politique de développement dañoo gën a jox gëdd Euh, lii di politique politicienne. oui oui loolu am la depuis suñu indépendance euh, de plus en plus président bu nekk da ngay bëgg euh, loo xam ni lay si biir dañ lii kat yow yaa ki def yaa ki fi def bon ñu koy gis Sénégal infrastructure yi am na solo lu jëm ci autoroute ku nekk daal depuis surtout am Wade président Ablaye Wade bon autoroute à péage pour ci rek nga naan ah Ablaye Ndour gi moom jàmbaar la léegi sax ku dugg terre première fois bi ma duggee terre la ki toogoon sama wet la fii ñu toogoon ah Macky Sall liggéey na tout temps di bëgg euh, di def maanaam loo xam ay dépenses euh, yi nga xamante ne ñëpp dañ koy gis mais bu dee lu ñuy suul nag xam nga assainissement problème la Sénégal ndax problème inondation yi mais li ngay def yi ngay def ci suuf ak xaaj milliards yi def ci suuf du feeñ mën ko def sax si benn quartier ku ñëw du gis dara parce que affaire bi mu ngi ci suuf mais day am solo ci askan yooyu nag nit ñi duñ ci sawar mais beneen bi ñu a ñàkk sawar également mooy li euh, développé parce que tamit am nañu suuf am ndox te xale yaa ngi fexe ba la jëm ci mboq ceeb euh, ba ci blé li nga xam ne moom kay nañu consommer dugub ji yokku ñebe ji yokku ba nga xamante ne du ñu am problème céréale mais dañu gis ni céréales yu bëri dañ koy jéggaani dañuy jéggaani blé blé bayuñu ci dara dañuy jéggaani une partie maïs maïs liñ ci bay doy ceeb noonu liñ ciy bay également néew na lool par rapport ak li ñuy consommer par jour ainsi fàttewuma nag théoricien économiste calcul avantages comparatifs loolu économistes xam nañ ko maanaam domaine yépp ngay liggéey da ngay domaine yoo xam da ko a mën def li nga gën a mën mm-hmm. xam nañ ko daan au niveau du commerce international loolu lu am la mm-hmm. waaye teewul Afrique dafa góorgóorlu ci yenn côté su fekkee que yow da bëgg di échanger au niveau international il faut que d'abord li nga mën gën a mën te ñu yaakaar ci li ñu gën a mën ko mais bu ko defee ba pare ñuy saison la euh, lu ñu mën a defal te defal ay jus mangue ba nga xam ne toute l'année Sénégal yi dañu mën a consommer mangue facilement ainsi de mu jëm ci bisaab daxaar et tout et tout nga xamante ni Sénégal yi bëgg nañ buy nga xam ne tey euh, monde entier mi ngi commencé découvrir euh, buy ainsi yooyu yëpp ñu koy liggéey di ko transformer c' est vrai que am na ñu koy def mais je pense que au niveau encore artisanal ah, nekkul au niveau industriel waaw donc yooyu dañ ciy war a def te loolu rek moo ñuy mën a may ñu ubbi eh, li nga xamante ne mooy marché de l' emploi xale yi di mën a liggéey parce que eh, dans les années quatre vingt soixante dix quatre vingt zone franche moom Sénégal dafa doon ay usines ba Pout ba Thiès ay la woon nit ñi dañ doon liggéey ah, di am ay contrat di am ay sécurité sociale yëpp yooyu moo disparaître informel bi moo fi ne mu def commerce ubbi quincaillerie fii jaay fii mais il faut que loolu yëpp baax na mais il faut que quand même ñu développer l'agriculture euh, artisanat pêche tout wëlbatiku di transformer suñu produit dans des créer ay usines et tout te yooyu c'est à notre portée c'est possible waaw loolu rek moo ñu mën a génne ci situation bi nga xamante ni moom la ñu nekk bañ dépendant trop ci pays développés yi nga xam ne à chaque fois euh, ñoom buñu pour ñu jaayi seen technologie euh, il faut que ñu joxe ñun ay milliards wala bokk ñu leb ay milliards te loolu chaque fois gros projet yooyu moo ñuy indil endettement bi ñu doon wax sànq bor yi ñu doon ñu wax ci leneen Assane ngi fi woon ndax ndaje googu muy président en exercice bu CEDEAO euh, di président Umbalo ñu gis ne dafa dalal Ousmane Sonko mi nga xam ne moom mooy farouche opposant bu njiitu réew mi ki Sall mi dalal Umbalo tey jii nan nga jàngatee justement ndaje googu la. ndaje bu am solo ndax Mballo. nit koo xamante ni peut être wane ko mais dina def ay médiation comme expérience la sur le plan de la sécurité eh, ci sous région bi surtout diggante Sénégal Guinée Bissau Guinée Conakry et cetera euh, ancien militaire la euh, bokk ak Ousmane Sonko fu zone bu ñu dëkk parce que Sonko Ziguinchor la euh, Mballo Guinée Bissau xam nga Bissau eh, ak Casamance xam nga seen relation relation historique la. culturelle religieuse ak yëpp daal. Mm-hmm. Eh, ay mbokk lañ ñëpp donc Mballo war na mën a wax ak euh, euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko parce que jàpp na ni moom euh, Sénégal dafa nekk ci tension maanaam nekkul ci guerre mais dafa nekk ci tension tension mooy affaire yi tàng bu buñ ci deful attention mën na indi après problème donc li def displo li ñuy wax diplomatie de la prévention fexe ba foog moytu lu ñëwagul fay ay woo xamante ni ñëwagul loolu moo gën moo tax mu waxtaan nekk Ousmane Sonko pour que ñu xool ni ñuy opposé wu moytu indi violence moytu indi euh, li nga xam a mooy waasoo ak mooy dogante mhm. nga xam ne indi ay problème je pense que seen débat ci yooyu lay lay tourné ñu bëri nañu ñu wax naan boo euh, Umbalo euh, xaritu Macky Sall loolu c'est vrai mm. Umbalo musu ko nungu xaritu loolu sax avant muy nekk président de la euh, woon ba léegi mais ci biir xarit bi mu xaritoo teewul moom dina am na benn responsabilité bu mu mën a jouer a comme également ñàkkul am na nopp bu ko Sonko di may ndax li ñu bokk lépp dina mën a tax moom mu def médiation ba nga xamante ni amaana yenn tension yi dinañ ko mën a wàcce Euh, comme ni ko ASACOD defoon diggante Macky Sall ak président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall donc yooyu yaakaar naa médiation yooyu lu am solo la en tant que euh, président de la CEDEAO te Umbalo yàgg na def si wàllu terrorisme ak domaine yeneen domaine stratégique euh, nga xam ne mënuñu ci xóot noonu mhm. waaye dañuy jàpp rek ni ñi mu def noonu la na ko continuer yooyu ku si nekk jàpp ci parce que du xaaruñu umbaalo pour médiation parce que Sénégal euh, manifestation vingt neuf bi ñëpp wax ci dox ci ba yàlla def ci dox mu sedd manifestation bu mujjul am parce que bu amoon mën na indi ay difficulté wax ci leneen dem ba Burkina Faso euh, Assane euh, kii di Blaise Compaoré mu jiite woon dëkk boobule nee nañu jamono ji ñuy àddu moo nga ca Burkina Faso jamono jooju nga xam ne tamit justice réew moomule da ko condamné ci mbiru Thomas a tey justement nan nga jàngatee tamit mbir moom. waaw lii la xam nga Burkina Faso boo koy xool da di réew bu spécial <laughs> maanaam réew bu xaw a kéemaane la li ñuy def xëy na ñoom rek ñoo ko ñemee euh, bon parce que tamit dañoo organiser projet Thomas Sankara def ko ay weer mobiliser ay moyens ay euh, addina bi communication ku ne di wax ñëpp rafetlu ko projet bi ba ñu condamné ki nga xamante ne moom lañ jàpp ni sax mooy le principal responsable mooy l'instigateur ki nga xam ne xëy na moom moo joxe ordre bi mooy ki nga xamante ni mooy Blaise Compaoré léegi bañ ko condamné à perpétuité mën na ko tëj parce que nekku fi mu ngi Côte d'Ivoire mhm. maintenant c'est mandat international ba pare invité ko déroulé ko parti euh, parti yóbbu ko pare xaw loolu la muy tekki <laughs> mooy yow da nga weddi sa propre justice da nga néewal doole sa propre justice mhm. da ñàkk fulaar sa propre justice da nga ko ñàkk respecté te loolu mënta nekk bu doon un pays légal euh, boo xam ne day doxal légal au moins mu def benn formalité dem assemblée de dugal benn loi d'amnistie baal ko donc recevoir c'est-à-dire dama lay wax formalisme juridique c'est-à-dire li ñu def noonu amul benn formalisme maintenant am na ñu moo ñu naan bon peut-être que régime d'exception la c'est un régime de transition régime militaire la bon yooyu yëpp malgré tout aju aju ñu quand même seen constitution la constitution burkinabé fonctionne comme la voilà comme la justice fonctionne la constitution fonctionne institution yi mu ngi fonctionner fexe ba li ngay def nga teg ci yoon même booy invité le président day fekk mu am benn base légale mm. bu koy permettre mu dugg Burkina Faso sinon bu duggee Burkina Faso avec le mandat d'arrêt international dañ yoon daf koy arrêté maanaam dañ ko war a arrêté systématiquement bu mm. bayee donc comme defuñu loolu lépp nag ñoom dañoo indi situation jaxasoo euh, léegi nag li tax ñu def ko mm. xëy na jàpp nañu moo ëpp doole xam nga olof na naan li yëngatu li nga yëngatu ëpp doole léegi li yëngatu lan la li eh, eh, li yëngatu mooy réew mi dafa tàng mm-hmm. terroriste yi di fa lëmbe force de l'ordre yi mënuñu téye terroriste yi mm-hmm. ñu ngi faat ay militaire ñu ngi sa faat euh, faat ay homme de loi ñu ngi faat ay civil chaque jour yenn saa yi sax mu am faat yu méttee méttee méttee méttee ah, ndax day bari ba pare day ñaaw te ñoom mënuñu am solution parce que bi fa Blaise Compaoré nekkee amoon na benn unité spéciale de l'armée bu doon wax régiment de sécurité présidentielle mm-hmm. régiment boobu ñoo ëppoon équipement ñoo woon entraînement fo boobu la général Diendéré ji jiite woon di ñu jëlee defee seen révolution ak Roch Marc Kaboré euh, hmm. dañ ko tas dañoo tas le régiment ah beneen unité armée yi amuñu entraînement boobu amuñu équipement boobu donc qu'est-ce qui se passe ñu am problème vide également jàppoon nii ni bi fi bi fi kii nekkee Blaise nekke problème musu fa am problème terrorisme la bëgg a wax musu fa am kon ñu ni nañ woo Blaise mu euh, naandal ñu ci na mu daan def ba du am problème mais nag mënuñu woo Blaise kese kese day ñaaw ñu mbubb ko ni léegi dañuy woo ancien président yi non seulement ñu am problème euh, tawféex ci sécurité mais nag ñu amorcer la cohésion nationale mais amorcer la cohésion nationale passe par une loi d'amnistie c'est-à-dire que il faut que ñu voter dans ce ñu dem plus loin ñu voter une loi d'amnistie bu ñu voter une loi d'amnistie maintenant baal gaa ñu génn kaso yi ñoom jënd rek ñëpp ñu réformer waat le régime de sécurité présidentielle permettre à Blaise Compaoré mu am benn statut de conseil spécial activer ay réseau fexe ba Mauritanie ni mu def ba donc donc yooyu moo leen di permettre après réew mu am jàmm parce que tante nañ lu ne nag wax dëgg yàlla militaire yi foofu ay jàmbaar lañ c'est comme au Mali jéem nañ def lu ne mais mënuñ ci terroriste dara parce que terroriste nit koo xam ne xeex ko yombul day sàmmi nagam wala muy jaay boutique am bu guddee mu sulli eh, kalashnikov am xeexi ah, waaw te ragalul dee te xam nga kooku neexu la eh, parce que doo la <laughs> parce que sàmm bi ngay romb mu ngar aw yatam maanaam mu nëbb kalashnikov ci suuf waaw loolu tax xeex terroriste yomb d'accord Assane ñu tënk ko rek ci ay eh, simili tey ñoo ngi waaj a ubbi li di campagne électorale fii ci mim réew ndax nag élection yi léegi mu jot 31 juillet la tey justement lan lañ mën a xaar ci lépp campagne ndax te jamono ji mën nañoo wax ne jàmmaarloo gu tàng gi ñu noté woon euh, fan yu wees yële temps yi dafa mel ni dal na. alhamdulilah rabbil alamin fi mu nekk nii dañuy daal di jublu rek si bi. parce que après jour parce que laay wax <laughs> la campagne bay commencé ñu dox ku nekk sept ans d'antenne donc dellu nañ ci li ñuy la légalité institutionnelle euh, maanaam tey maanaam ñun ñëpp ñu tënk ci loi bi ku nekk dem campagne ñu xool li lay yoon may nga jël ko ci wàllu élection opposition bëgg na am majorité assemblée pouvoir bi bëgg na garder majorité à l'assemblée ku nekk yaa ngi xeex sénégalis yi ñooy foofu la ñu toll maanaam romb nañ léegi manifestation yi waroon mën a am romb nañ yooy parce que donte nag décision yi nga xamante ni la direction générale des élections jëloon nag conseil constitutionnel euh, dëggal ko nekk na décision yoo xamante ni méngoowul ak lu ñu mën a nangu ci yoon mm-hmm. waaye nag dañuy jàpp ni euh, erreur bi tamit ñëpp la parce que parti yi tamit bi ñuy def seen investiture dañoo def ay erreur ci seen liste mhm. <laughs> donc normalement Benno ak Yewwi sax buñ ko jaaroon ci yoon dëgg-dëgg dañu jàpp ñu bokk ci élection yi mhm. donc comme noonu la demee am na tuuti maslaa juridique am na taf <laughs> xale yi naan taf yëngal <laughs> taf yëngal juridique boo xamante ni universitaires yi sax mer nañ ci ak euh, am am ñu ay kilifa yu mag ñu mel ni ancien ministre Ibrahima wax nañ ci euh, conseil constitutionnel mën nañ def décision yi nga xamante ni moom lay jël loolu daf ciy am solo mais dans tous les cas fi mu nekk nii dépassé nañ cap boobu mm. donc dañuy nekk léegi ci campagne campagne boobu nag nañ ci def attention parce que tension bi mu ngi fii xam nga euh, bàyyi nañ yëpp teg yëpp ci suuf taxawul nit ki mer mi giif dëgg la ñi mer ba léegi seen mer giifu donc lu ndaw rek mën na taal lu bëri donc dañuy attention caravane yi di bañ a daje ñuy bañ a def organiser meeting yi en même temps ñuy def attention daal situation crise di bañ a am ci biir campagne électorale bi ba léegi dañu war a moytu mooy di def discours yoo xam ne day amay waasoog naan kii région sàngam dëkk kii ethnie sàngam lu bokk ak Euh, tarixa sàngam lu bokk yooyu daf ñu indil ay problème nit ki dañoo war a xam ne ñun ku ci nekk si ñun aussi bien citoyen que yi mhm. que tarixa bi nga bokk wala ethnie bi nga bokk wala yooyu yow loolu yow yow la concerne yow na nga ko dund sa sphère privée mhm. mais nag li jëm ci république du Sénégal nga xam ñun ñëpp ñoo ko bokk mhm. ku ci nekk ci ñun dafa am obligation Euh, par rapport engagement yi fi nga toll ci engagement bu fekk li def politique nga bu engagé wu lay intéressé mooy nan ngay développer réew mi renforcer démocratie bi développer réew mi mm-hmm. yow loolu moo war a nekk sa programme amul beneen discours bu ñu intéressé ci yow sama yaay fee dëkkoon ak sama maam jóge woon fee dem fa mais loolu intéressé wu ñu koo gis am na baay am na maam donc donc franchement nañu moytu tous ces discours di justifié wu di wane sa sénégalité soxlaawu ñu kenn wane sa sénégalité moo <laughs> tax je pense que débat yooyu nañ ko teg ci mhm. parce que débat yooyu taal na Rwanda taal na tax na yi. Mhm. ak ak pël yi mënuñu jubóo Zagawa yi ak ak kii euh, Nguraan yi mënuñu jubóo Tchad. Mhm. Euh, vraiment euh, dogon yi ak pël Mali. écoutez réew moo dem. pratiquement en Afrique bu amee problème problème yooyu moo ci li ka xam ci li ka xabaat ci ci la donc nañu moytu parce que amul benn njëriñ en fait <laughs> bu dee ñun au Sénégal euh, l'ancien président Senghor euh, vraiment paix à liggéey na ci ba def une cohésion nationale ba ñëpp jaxasoo nekk benn je pense que loolu lañu war a préserver ñun ñëpp ànd liggéey législative ak yooyu jarul vraiment ñu waa ñuy taal réew di andi instabilité. ñu lay jaajëfal euh, bu baax a baax. <coughs> merci beaucoup